Aji Mor Gueye moom sëriñ Fallilou buñ ko dee waxtaanee noo ngi waxtaanee Serigne Fallou Alhaji Mor Gueye moom Serigne Fallilou buñ ko dee waxtaanee noo ngi waxtaanee daaray tarbiya Alhaji Mor Gueye moom Serigne Fallou buñ ko dee waxtaanee noo ngi waxtaanee Serigne Moustapha Fallilou te yaakaar naa na ñi xam Alhaji Mor Gueye moom Serigne fallu ñëpp xam nañ ne weesuwul yett yi ma tudd. daaray tarbiya sëriñ Fallou Mbakke sëriñ Moustapha Fallilou léppam foofu la nekkoon moom nag li boroom xam-xam yi wax ne sunu boroom bu nammee mbir faaw da koy waajal ay sabab isa arada allahu amran hayya lahu al loolu moo wane ne moom ku ñu waajal la ku ñu tànn la ci biiri tànneef bi nga xamee ne yàlla dogal na way juróom wàcc ab liggéey ñu teg ci ay ab diir bu néew mu bàyyi ko nag njàmbur foofa ca Kelle géey dem naweti fee ca wetu Mbuur nawet fa ba nawet ba jeex 1946 mu bàyyi koo foofa akub liggéeyam ne day dem ndakaaru yaxantu ji ba mu demee ndakaaru yàlla dogal na way juróomu jigéen ba nga wan foofa soxna aram njuga sëñ Fallou at moom la def tournéem bu njëkk mu jóge fii dem ndakaaru bi way juróom wu jigéen wi dégg ne sëñ Fallou ngi ndakaaru la dem si ji ko sëriñ Fallou ne ko ana Momar Gueye sama moom mu ne ko moom sax de yi mi ngi fii sëñ Fallou jox ko ndigal ne ko boo demee nga andil ma ko ak ay bagaasam bu fa bàyyi dara soxna si ñëw ànd ak yóbbu ko ci sëñ Fallou sëñ Fallou yeewi soxna si daldi woo sëñ Muudu Mbay Tariyaax ne ko gone gii sama loxo ak sa loxo ba Touba daal koy jox ndigal moom mu xëyee foofa jël saxaar gi wàcc njaarim te sëriñ falu nee na ko boo demee njaareem ngeen xaar ma fa ba ma ñëw foofa lañu ñu toog ba Serigne Fallou àggale yitteem ca Ndakaaru daal di fay jóge nag ñëw njaarim ànd ak ñoom ñëw Touba bi ñu ñëwee Touba Alaaji Mor Gueye ñu wàccee ko kër soxna Asu Cerno mooy maam yi Serigne Cheikh Abi mii mu ab fa ab diir ñu yóbbu ko kër sëriñ Mbay Sàll sëñ Fàllu jox ko sëñ Mbay Sàll te booba fekk na sëñ Mbay Sàll di mbokkam ndax maamama soxna Mbende Gueye mi nga xam ne mooy wayjuru sëñ Mbay Sàll mooy bàjjanu sañ Mouhamadou Fage yi kon maami Alaaji Mor la mu nekk foofu yetti at sëñ Mbay Sàll door ko faa jëlee nag yóbbu ko daaray ñànka moom Alaaji Mor da daa nettali ba muy dem daaray ñànka booba waxtu naaf gerte la naaf gerte mooy bu ñu déqee ba dajale tar yu ñuy dajale di ko def ngar loolu mooy naaf nee na ci waxtu wa la fa dem sëriñ aboo mii fi bàyyi ko sëriñ abibu mii fi bàyyi ko am na ku muy àndal ku tudd alaaji mbeng booba way juróom mooy door a wàcce ci daara ji alaaji moor gay wuutu ko foofa nekk fa di wattu naaf yi waaye moom alaaji moor jamono jooja sëriñ fàllu bajaan mooy jëwriñam mu nekk foofa ca daara ja daara joojee nag xame nañ fa pas xame nañ fa jomam xame nañ fa itam way ji mu way ci jaamu yàlla daara ja sëriñ Fallu li feer li loolu sëriñ Fallu daa dégg ne daara ja am na fa ñu dul woor mu daal di jóge fii benn bés xëy dem seeti daara ja bu ñëwee fekk leen ci tool yi ñuy liggéey yéen bi nekk ci at ci ci digg daara ji moo dugg ci ni yéen bi dindi sàkket yi jàkkaarloog ñoom moom alaaji moor booba day womat nee na bi muy womat ba jot sëriñ Mbay Sall nodd bi sëriñ Mbay Sall noddee mu taxaw téye fas wi ki mu àndalan téye machine bi ñu ba ñu daal fay bàyyi yooyu ñëw julli si sëriñ bi jiite leen bi ñu jullee ba noppi sëriñ bi di ko xool ba yàgg mu ne ko dangaa wóorut mu ne ko woor naa kay sëñ Fallu ne ko waaw góor ñu xam ne kon sëñ Fallu bëgg na ci moom keroog ndax la mu doon seet moom bokku ca sëñ daara joojee Baay Mor nee na wànnent na fa wànnent wu metti woo xam ne sëñ fal dafa ñëw ci guddi ga dal koy woolu ci ci guddi gi ñaanal ko ci boppam jël ab tuufaay tuuf ko ci Baye moo dalaa wax ne tuufaayu sëñ Fallu boobee ca laa gëj a yëge mitiitu bët ba nim fi bàyyi ko li muy doon doon mag boo ko joxee puso mën na koo nas te nee na wóolu na ne tuufaay boobee ko sëñ Fallu tuufan ca ko yàlla maye loolu waaye nag gis nga foofu li fi nekk li ma lay wax ne ko wayen ci jaamu yàlla la li mu yéem yéem sëñ Fallou bàyyi na xel yàlla ndax nee na li yàlla def ci barkeb sëñ fallu la ko defee kon bàyyi na xel yàlla waaye wóolu na itam sëriñam di ko ñaanal nee na daara joojee nekk na fa nekkin woo xam ne nekkin wu metti la waaye moom li yàlla dajale woon ci moom mu nekkoon ku am fit nekkoon ku ñime wéetaay koo xam ne la muy nekk ci daara ja lépp ndigal rek lay fuglu waaye du tal leneen bi nga xamee ne yàlla dogal ñu tàmbali liggéeyu jumaa ji indi bagage yi jóor ko ci penc mi tubaab bi ànd ak alaaji baara wax ne bagage yu toll nii mënee su ko fee bàyyi te amul koo garde te itam liggéey bi mënta ñàkk ay mineebar ñu ne nag kon dañuy jëli ay ay dongo ca daara ja bu ñu ñëw minebaru bu nga ne ñu delluwaat am bés boo xam ne bi dongo yi ñëwee na ci daara na ci liggéey bi na ci liggéey bi ba ngoon ñu ñu dellu alaaji Mor des fa moom moom rek bi tubaab bi waxee ak alaaji Baara loolu alaaji Baara ànd ak tubaab bi ñëw ñëw fi daal fi dongo yi nekkoon fekk yenn dongo yi dem alaaji rek bàyyi Mor rek des fa alaaji waxtaan ak moom ne ko ndax nga man loolu tubaab bi wax mu ne ko bu ma ko sëñ bi digalee dinaa ko man naka jekk mi ngi bàyyi xel sëriñ bi alaaji mo alaaji Baara ànd ak moom ñëw ci sëñ bi leeral ko loolu sëñ bi ne ko waaw waaw digal naa la ko demal ne fa duut ba ma soxla la wax nañ ne guddi googu ku ñuy wax Baye Aliou Diop moo fu jëkk fanaan waaye ñaareelu guddi gi àll ci des lépp Baye Mor moo fay nekk di garde bagage yi di wattuwaale itam te booba itam jàjj fal ñu ngi koy ñu ngi koy gasaat mooy teen bi ci biir kër sañ Touba waaye moom booba la mu fay liggéey mooy di taal machine yi bu guddee bu guddee di duy citerne bi nekkoon ci buntu kër sañ Fallu da koy duy ba mu fees ak kër yu mag yi wër jumaa ji yëpp mu def mu jox leen ndox nekkaat ci ab liggéeyam loolee ca la nekk mooy la ko jëlee ñànk indi ko foofu kon nag ba tey da ngay bàyyi xel ne ba tey mi ngi ci daara rek ndax ndigalu ko bàyyi foofu mu nekk ca loola ak fulla ju mat sëkk wax nañ ne am na benn bés tubaab bi ñëw bëgg koo jaay kilifteef bëgg ko am ñu ngi koy imposé mu bañ koo faale rek ba xaw caa jàppanteeg tubaab bi bëgg dem rek laay wax ne Serigne Modou Gueye mii di dawalal Cheikh Bass sañ Cheikhum sañ Saliou wax nettali na ko xëy boobu nee na ko sa way jur ba muy jàppanteeg tubaab ba fekke naa ko kon loolu am na seede noo xamee ci fullaam ak faydaam won na tubaab bi ne ko boo dee kilifa it man yilifoo ma te li ma sama kilifa digal rek laay def foofee la nekk ba liggéey booba jeex ñu jal ko jëlewaat foofa indi ko biir kër sëñ Fallou mu nekk kër sëñ Fallou booba sëñ Fallou fas yi ñu koy indil addi addi di ko jox moom lay jox Baye Mor mu di ko toppatoo waaye bu yoree fas yi ba nawet jot day at day jël fas yóbbu leen aliya bu ñu liggéeyee ba at ba liggéey ba jeex mu dellu si waat ak i fasam ci kër sëñ Fallou wax nañ ne booba aliya sëñ Mor Cissé mii nekkoon way juru Cheikh Cissé mi jëkk nekk chef de village su Ndindi moo doon seen jëwriñ foofee mu ànd ak ne ca loola ne ca loola ba liggéeyub jumaa ji àgg bi liggéeyub jumaa ji àggee sëñ Fallou yewi leen ñaanal leen ñoom ñëpp moom nag li wax ne xol la ci jëkk du tuxu ba mu amee ñaan ak sëñ Fallou ak ngërëmam xelam daa demaat ci yaxantu ji la jëkkër na ci ab liggéeyam te yaxantu domaine la boo xam ne sunu borom tagg na ci ay jaami yàlla yoo xam ne buñ ko defee te sellal ko mën nañ caa amee lu ko wecceen njort yaxantu boobee mu dal di ci jublu ubbi ab boutique ci kër soxna Sooda koñ bi jàkkaarloo kër sëñ kër sëñ Mor Doj foofu la ubbi woon ab boutique ne ca bitig ba ne ca bitig ba ba yàlla dogal mu jënd ab oto bay waaj jënd beneen xam ne kon booba liggéey ba dox na ndax doxin mu sell wi ak ñaanu kilifaam bokk na ci la ko ci dimbali ak rafetal gi muy rafetal ni mu koy ni mu koy ni mu jëflanteeg nit ñi loolu lépp day feeñ ci ab liggéey moo tax liggéey boo ci nekkee di ko sellal te yàlla tax mën naa tax mu dolli ko guddeeg bëccëg ba nga xamee ne sëñ Fallou soxla na nag ku mu jox dëkk bi sant ay mag ñu di ko seetal mag mu ñu wax léeg-léeg kenn mel ne mag wax kenn sëñ Fall ne ko kooku day nanga ma tax du ko man mu jàll seetaat keneen ba yàgg sëñ Ousmane Bousso ne ko gone jii ci sama kër day ko koo ko jox dina ko mën a yor sëñ Fall ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ko dama ko nattu ci yet yoo xam ne koo ci nattu mën nga koo wóolu mu ne ko yett yooyu yumu mu ne ko xaalis bii nga may dénk moom laa koy jox te nim ma koy delloo ak nim ma koy leerale tax na ma mu yëm ma lu ma koy jox dana ko bind bés ba ak waxtu wa su ma yebalee gone laaj ko ca dara dana ko bind bu ma wàccee bu ma koy leeral noonu la koy toppe ba mu yegg dara du ca ñaareel ba itam musuma ko woo mukk mu wuyoo ma ci keesu jigéen ñi ab tànkam du fa xadd mukk ñetteel ba nag bokk na ci li ma gën a yéem ndax saa yu ñu ko wooyee aw ñam mu ne bàyyil ma dem ca sama laax ba kon nag loolu laa xam ci moom dal di wax suñ fal ne ko as gor la ku maandu la ku doylu la foofu it suñ fàllu jëfe na fa jëfi kilifa ndax da koo bàyyi xel ba noppi wéyal ab gëstuum ñu continuer di gëstu ba am bés nag sëñ fàllu woote daarul ma naan bi mu wootee daarul ma naan mag ñi nekk foofa mu woo Baxaw Fall fekk na bés boobu baay Mor am na nijaayam ju daan jóge Kolobaan di indi addee ci kër Sëñ Fallu te saa yu ñëwee ci moom lay jaar ñu di ko wax Alaaji Mbay Njaay Sarata bés boobee mu jóge Kolobaan ñëw nuyoog Sëñ Mor ne ko ñëw naa mu ne ko négal nem ne ko sëñ bi baxam xam yëngu na teyam déet dugg ci kër gu mag gi ñu ne ko sëñ baa nga daarul ma naan mu del siwaat ne ko sama nijaay nan dem daarul ma naan sëriñ baa foofa Alaaji Moor nee na bi mu dugg ci da këru ma naan gi dégg nañu tudd aw turam waaye xamagul lu xew bi mu nuyoo àggale ganam googu mu nuyoo joxe àddiyaam Sëriñ Fallu da ko ne maa ngi la doon bëgg woolu sax fan jamono yi yëpp may wut kum ku ma jox dëkk bi waaye nee nañ ma mën nga koo yor dal ne ba Baxaw Fall nguur si laal doon wax dal di xool Alaaji ne ko dama laa bëgg a jox dëkk bi nga yoral ma ko Baye Mor ne dama ne tekk tiit naa tiitange joo xam ne sëriñ bi xam ne tiit naa ma ne tekk ba xaw faal daal ciy dugg ne ko ngóor si doo def li la sëñ bi wax tee ngaa nangu mu ne ko hee déglu ma rek man sëñ bi laay waxal sëñ Fallou ca xorom sa ne ko hee waaye xanaa xamoon ne kii buura bu ko neexee jàpp nu maa jow te doo ci mën dara daal di koy déglu nag Baye Mor ne ko dëkk bii day Mbàkke dama cee ragal yett sëñ Fall ni ko yett yooyu yumu mu ne ko njabootug sëñ Touba gii ak bokki siriñ Touba yii ak taalibey sëriñ Touba yii boo jaaree ci sama tur ne ma doo ci yàqu doo ci yàqule ma nangu ko nee na sëñ Fall dal téye ci loxo ne ko tàllal sa loxo mu tàllal mu ne ko El Hadj géy ñoo ñii nga wax doo ci yàqu doo ci yàqule daal di koy bëmbax ci mbagg na ko yoon nag dinaa la dimbali alaaji moo dalaa wax ne ni baatum ndimbal boobee dem naa ba fu ma fu ma toog rek dinaa ko gis maa ngi jàkkaarloo ak ndimbal loolu ma waxoon nii la ko sëñ Fallou joxe dëkk bi kon alaaji Mor Gueye euh, waxtaane ko mooy waxtaane sëñ Fallou waxtaane ko mooy waxtaane daaray tarbiya mooy waxtaane sëñ Moustapha Fallilu kon noo ngi ñaan suñu borom fayal na ko na mu doon liggéeyale Serigne Fallou te yàlla dimbali ko itam mu yar ci ak njabootam loolu rek njaboot gi nañ xam ne am nañu sens waaye am nañu sas am na loo xam ne sens la waaye boo gestoo di nga xam ne aw sas la ndax baax moom koo xam ne dañ ne la fii la sa maam jaar fii la sa wayjur jaar ba noppi jaare fa mu jaaroon boo fi desee am nga loo dese lu rëy rëy rëy te mag ñi dañ ne ku des nag dese kon nag yoon wi mu leen tegoon fas yéene leen cee jaar te jéem a ànd nekk benn am na kàddu gu ma dégg wolof yi di ko wax nag waaye goog kàddu yéen bu leen sukkandiku mukk wolof yi dañuy wax ne fu ndox daa taa boo fa demee fekk fa tepp-tepp loolu arrière la de arrière la fu ndox daa taa boo fa ku fa ñëw da war a xuus loolu mooy jom te dinaa joxe firnde ju rëy sëriñ muutu bu sukkandikoo woon baat boobu kër sëñ fal du agsi fi mu agsi sëriñ ji li mi fi bàyyi ko léegi bu sukkandikoo woon baat boobu kër sañ Modou du agsi fii mu agsi te yéen nag ñooñ ñooy seen kilifa de waaye ñooy seen nawle ndax fii Alaaji Moor jaar ñoom foofu rek la leen jaarale kon na ngeen góorgóorlu topp seen mag ju baax jii ànd ak moom kenn bañ a werante ànd ak moom ci loolu ngeen fas yéene lii ñu fi wax ci lu baax lépp boo léegi ku fi ñëw gis fi lu kawe loolu loolu mooy li nga xam ne mooy lu jaadu yal nañu yàlla dimbali defal tawfiix yal nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla na nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet maa ngi jégalu kàddu yi ni ma ko waxee woon ci njëlbéen gi yéene ji gàttanu yaakaar rek la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu